Nous sommes en Casamance. Nous sommes à Ziguinchor. Nous sommes à Néma. Nous sommes devant la maison du président Ousmane Sonko. Voilà, nous sommes à Ziguinchor. Nous à Ziguinchor devant, nous sommes dans le domicile du président Ousmane Sonko. La tanière du lion ici à Ziguinchor. Sérénité. sérénité, le président Ousmane Sonko. Le président Ousmane Sonko qui s'apprête à sortir et à aller à la rencontre de ces bonnes dames qui, depuis plusieurs jours, au moins cinq jours, occupent cet espace au champ des rythmes et musiques culturelles, traditionnelles et mystiques euh, de la Casamance. Nous sommes ici, dans la tanière du lion. C'est pas aujourd'hui Cité Kergorgi, mais c'est le NEMA. Le président Ousmane Sonko, il est là. C'est Le président Ousmane Sonko, il est là. Téléphone. Mingi nonu. Mingi. Mingi nonu. Mingi nonu. Mingi Président Ousmane Sonko. Président président président il est là président président il va rencontrer il va rencontrer ces bonnes dames il va rencontrer ces bonnes dames il est là. Brother. président ngi noonu le président Ousmane Sonko le président le président Ousmane Sonko xale yaa ngi noonu xale yaa ngi noonu devenue cette grande avenue de joie et de liesse populaire. La grande avenue de Neymar déroule le tapis au milieu des gravats, les barricades levées, le président Ousmane Sonko en promenade parmi ses siens. Mi ngi président Ousmane Sonko. mains, le feu. de la dignité. Le quartier du président Ousmane Sonko. Mais maintenant, pouvez remarquer, à la place du champ de bataille, il y a une liesse populaire avec le président Ousmane Sonko qui est en de revoir cette masse, cette jeunesse qui le protège jour et nuit. Cette masse que j'appelle la masse La masse silencieuse, la masse de la dignité, le président Ousmane Sonko ak xale commune bu Ziguinchor Président Ousmane Sonko ana ñi waxoon ni président nekku fii président ngi nii génn saafonteeg xale yi le drapeau vert jaune rouge frappé de l'étoile au milieu mooy flotté du mësa président Ousmane Sonko ñoo ngi Ziguinchor la ville de la dignité ñoo la capitale de la résistance Bourok City Bourok City xale yaa ngi noonu ñii ñoom ñoo géré woon sécurité président Ousmane Sonko ñi ngi continuer di ko géré yéen a ngi seen xale yële nekk ci ginnaaw taxaw fixe nekk ci parce que c'est des positions à ne pas laisser xale yaa ngi noonu taxaw ci dëgër malgré seen jàmbarte malgré li seen xol ne ñoo ngi noonu président Ousmane Sonko noonu mi ngi noonu mi ngi noonu Ziguinchor le véhicule marche en reculant le véhicule marche en reculant ngi le maire de de Ziguinchor. xale yaa ngi way bul way naa la bul ma jooyloo Burok City président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko Ziguinchor Ziguinchor Ziguinchor nee

voir la réaction des forces de l'ordre xale yi ñoo ni président da ngay dellu ci kër gi xale yi ñoo ni président da ngay dellu ci kër gi booy yi seen barricade yi seen bakkan lañ ci teg booy yi seen bakkan lañ ci teg président mi ngi noonu président Ousmane Sonko xale yi yëkkati nañu barricade yi yaa ngi noonu barricade yaa ngi noonu c'est en flamme c'est en flamme yi nee nañ président fii doo fi jàll Ziguinchor a ngi nii président Ousmane Sonko yaa ngi noonu tenir les barricades booy yaa ngi noonu tenir sen ay position booy yi nee nañ président bëgg nañ la waaye fii doo fi jàll mi ngi noonu président ngi noonu booy yi ñu ngi tenir fi ngeen di seen noonu mooy hôpital régional bi FDS yi dellu nañ ginnaaw bu baax a baax président Ousmane Sonko mais combattant yi na des fële. mi ngi noonu yéen a ngi dégg na ñu des ci ginnaaw. mi ngi noonu Ziguinchor xale yi Ziguinchor yaa ngi nii yaa ngi nii le peuple de Ziguinchor. La revue des troupes. Président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko boy yi nee nañ bi dellu boy yi ils tiennent à protéger le président nee nañ ko dellul yéen a ngi koy gis noonu ñi ngi bumax oto bi ñi ngi bumax oto bi le le véhicule marche en reculant boy yaa ngi ni détermination détermination mbëggeel ngi ni mbëggeel a ngi ni xale Ziguinchor yaa ngi nii nee nañ président dañoo barricadé bàyyil ñu delloo la moo gën xale yaa ngi nii il tient tellement au président Ousmane Sonko yéen a ngi dégg déglu leen ambiance noonu mi ngi noonu ça c'est les remparts de Ziguinchor ñoo ngi noonu les marcheurs de nuit de Ziguinchor ñoo ngi noonu xale yaa ngi président Ousmane Sonko président ngi noonu mi ngi noonu président dafa génnoon président dafa génnoon pour s'affronter xale yi nga xamante ne ay fan a ngi fi xale yaa ngi taxaw di jàmbaarloo gaay président ngi noonu président ngi noonu président ngi noonu la marche victorieuse kaw barricade yi xale yaa ngi noonu mi ngi noonu doxantu seet si xale yi Président Ousmane Sonko président président Ousmane Sonko. président Ousmane jeunesse populaire la joie de ces jeunes yi topp président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko mi ngi noonu xoolal xale président dugg na noonu mi ngi noonu comme je vous ai dit tout à l'heure da di tolluwaay boo xamante ne président Ousmane Sonko moo doon doxantu pour revoir un peu le dispositif li booy deme itam sargal leen euh, nuyonte ak ñoom ces bonnes dames yi fi nekk depuis ay semaines depuis ay jours ñi ngi fi président Ousmane Sonko génnoon pour euh, doxantu tuuti saafonte ak ñoom échanger un peu ak ñoom on va vous donner une petite exclusivité parce que président président Ousmane Sonko nekk ci internet bi xam leen ni président nee na ma man mi Ibrahima Diallo man mi nekkal leen fi président nee na naa leen wax ne kontaan na bég ci yéen gis na engagement bi gis na concentration bi président remercie tous les patriotes du Sénégal d'ici et d'ailleurs nee na kontaan na bu baax a baax ci yéen soldats yi fu ngeen mënti nekk président kontaan na ci yéen président Ousmane Sonko nee na leen jërëjëf président Ousmane Sonko nee na leen mi ngi leen di xool mi leen di gis seen liggéey am na solo lool la ma président wax àggale naa leen ko d'ici quelque di dinañ ci dellu si waat waaye mi ngi nii le président l'espoir du peuple l'espoir de l'Afrique mi noonu doon seet si juste nuyonte ak femmes yi nga xamante ne nekk nañ fii ay jours et jours à ses côtés fii nii guddi ak bëccëg di veiller di ko ñaanal nekk ak moom di souffrir ak moom ñoo nekkoon fii président génn di saafonte ak ñoom ay milliers de jeunes yi nga xamante ne les guerriers de Ziguinchor ñoom ñoo tenir les barricades ñoom ñoo taxaw ñoom ñoo ni président kenn du la fi jëlee ñoom ñoo ni président fii yow yaay boroom ñoom ñoo ni président yaay suñu yaakaar tous ces jeunes sont là et les autres qui sont dans les autres barricades aju un peu partout à Ziguinchor ceux qui ont permis à Ziguinchor de résister et de rester debout avec ki nga xamante ne moom mooy seen doom ak nga xamante ne moo di l'espoir du peuple sénégalais the eagle one the eagle one la tanière du lion ici à Ziguinchor fii nii ci <laughs> mi ngi noonu la procession des jeunes la procession des soldats de Ziguinchor la procession des enfants dignes de Ziguinchor ñoo ngi noonu di wéy H24 di ñuy wéy pour motiver wu xale yu am jom nekkal fii ak président Ousmane Sonko ñu ni ko yow toogal fi nga toog rek fii kenn du la fi jël si fii yow borom Sénégal yaay borom la jeunesse digne la jeunesse patriotique de Ziguinchor ñoom ñoo taxaw gérer affaire bi. ñoom ñoo taxaw gérer affaire bi muy ay mag ngeen xamante ne femmes yaa ngi noonu les bonnes dames sont là les dames de Ziguinchor sont là taxaw H24 ñoom itam soutenir président Ousmane Sonko xale yaa ngi noonu ça c'est la marche de la victoire la procession de la victoire déglu leen ambiance bi ça c'est des chansons guerriers écoutez-moi ça l'Afrique fière de ses enfants Ziguinchor a ngi Ziguinchor est là Ziguinchor est là Ziguinchor est là Ziguinchor est là jeunesse patriotique bu Ziguinchor ñoom ñoo taxaw ñoom ñoo ànd ak président Ousmane Sonko exceptionnel de vivre ces moments historiques ici à Ziguinchor le président Ousmane Sonko génnoon tey saafonte ak xale yi nga xamante ne depuis des jours gudi ak bëccëg ñoom ñoo fi nekk mi ngi noonu Ziguinchor a ngi nii Ziguinchor a ngi nii ñu ambiance ak waa jeunes de Ziguinchor un triomphe qui se portent, ils se portent triomphe ici devant le domicile du président Ousmane Sonko. Ziguinchor a ngi nii Ziguinchor a ngi nii xale yaa ngi béggee xale yaa ngi def procession buntu këru président Ousmane Sonko tey dañoo am bànneex dañoo am bànneex am mbégte gis nga leen ñi ngi rejoindre les positions ñi ngi rejoindre les positions ñi ngi rejoindre les positions suñu maman yaa ngi noonu xale yaa ngi noonu dellu nañ gérer ji barricade yi dem nañ gérer ji barricade yi parce que xale yu am fula lañ utile ak agréable dellu nañ ci position barricade yi sécuriser périmètre domicile président Ousmane Sonko. Vous venez de vivre en direct, vous qui nous suivez ici et ailleurs, la procession et la promenade du président Ousmane Sonko, maire de la commune de Ziguinchor, qui est sorti remercier ces dames venus de toute la Casamance lui prêter soutien venu lui prêter main forte ñëw toog fii ànd ak moom depuis ay fani fan ils sont là elles sont là depuis des jours mais aussi ces jeunes sont là ils sont des milliers des centaines qui tiennent des barricades tout aux alentours euh, de la maison du président Ousmane Sonko mais aussi au-delà toute la commune est gérée actuellement par les jeunes patriotes du Sénégal les jeunes euh, du euh, de la Casamance les jeunes de Ziguinchor, les jeunes du Sénégal venus de partout. Ils sont là, ils se viennent de retourner au niveau des barricades. Et de ce côté-là, vous voyez l'ambiance. C'est les bonnes dames de la Casamance, ces bonnes dames qui ont fait le déplacement. Elles sont là depuis des jours, elles chantent, elles dansent, elles veillent. Elles veillent sur l'espoir du peuple sénégalais, elles veillent sur le président Ousmane Sonko. Vous êtes en train de voir ceci, c'est historique. Nous sommes à Ziguinchor, Ziguinchor, fi nga xamante ne xale yi wax nañ président Ousmane Sonko fii yow yaa fi moom fii kenn du la fi bund xataatal fii mooy Ziguinchor la digne Ziguinchor bi nga xamante ne dignité la ñu wootee buntu këru président Ousmane Sonko ce monde et la ils sont là ils sont venus soutenir le président Ousmane Sonko et le protéger défendre le projet protéger le pros loolu mooy seen devise président du gàdd na léegi léegi euh, ci biir këram waaye xale yaa ngi ni waaye li ngeen di gis nii à tuut la rek ndax xale yaa ngi ci barricade yi xale yaa ngi fépp fi nga xamante ne wër na kër gi euh, à des avoir 500 même 1 kilomètre tout à l'heure des forces de sécurité dégagé nañu lépp président dem rencontrer ces jeunes là wax leen merci vraiment parce que aussi nitu bu am reconnaissance la président Ousmane Sonko maire de la commune de Ziguinchor euh, tey lii moom moo fi amoon muy la promenade surprise surtout mais itam visite bi nga xamante ne président dem na def ko ak ñi nga xamante ne depuis des jours ñoom ñoo toog di veiller ci moom ñoom ñoo toog di ko jàppale donc c'était tout lépp lu fi mën ci amaat yi ngeen ko amaat waaye comme yéen miin ngeen ko xam ngeen ko xam ngeen ni fii nii daanaka endroit bu sacré la film bi waru fee bëri li ñu fi wane itam war bëri donc on se donne rendez-vous tout en vous disant comme à chaque fois il faut défendre le projet et protéger le PROS.